الله الرحمن الرحيم mbokk jullit yi mbokk taalibé yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalu Serigne xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Modou Abi Mbacké xalifa Serigne Abdoulaye Mbacké borom dër bi Cheikh Souley PDG général Aliou di seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibé moo am mbégte di li ndigal ubbite juma jamu amal ci yoonu Ndindi Sump Baye Diagne ajjuma ñeenti fan ci weeru mu di ko yëgal njabootu Serigne Touba gépp di ci woo mbooleem yëgal itam ne jumaa ja amal nanu fa ab daara franco arabe bu mucc ayib ci barke Serigne Touba ndax ku ne Touba ne jaamu yàlla jàng jàngale alxuraan ak xamxam xam bés bàngoog ubbi teg néegu yàlla ba sunu borom baaxee Cheikh Souley Diagne PDG général Aliou mu amal ko ca yoonu Ndindi sump Baye Diagne ca Touba ajjuma ñeenti fan ci weeru mars 2022 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu